ansibilahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barkeel borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci ànd ak yéen di ànd ak l TV ñoo ngi fi nag euh, tey ci Tuubaa ci jannatul firdawsi ci kër Serigne Abdou Gueye Ridial di def liggéey bu am solo ci wàllum ñaan ak faj euh, moom nag lañ fas yéene dara tey jii euh, suñu jotaay bi nga xam ne ni dañ koy def ngir njëriñu askan wi mu dikk ak ñun ci liggéey bu solo bi nga xam ne koy liggéey askan wi te yàlla rek tax kon duñ def lu jox ko kàddu gi mu nuyoo ñu doon ñëw ci laaj ak tontu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi di jiital fi nuyoo bi eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir di ko ñaanal suñu borom may ko fan bu gudd wànd ak ko bu ba mu yeggale ay naalam ci darajay lislaam te naan ko ak moom. di si di leen sant yéen bu baax ci nii ngeen def yéen yéen waa L24 ni ngeen def ñëw uh, jël si xam-xam ngir tasaare ko bokki jullit yi ñu ngi leen ci nuyu bu baax di leen ci siyaar bu baax baax. jërëjëf sëriñ uh, Abdou Guèye Ridial ci présentation yu am solo yooyu ngay liggéey liggéey bu am solo suñ bëggoon a xam kan mooy sëriñ ab Guèye lan nga nuy présenté. Abdou Guèye yàlla la di taalibe Sëriñ Tuubaa. jàng asra jànge Touba si suñu dalul jàng ñu ngi ko dalee ci suñu wajuru góor moo nu tàmbali jàng ñu jàng ci daara Serigne Bassirou Lo ginnaaw bi ñu fa jógee nag lañ dem wuti xam bi ñu ñaane tey mën nañ ne luñ doon la waaye luñ jàng liñ jàng tamit moo ci ëpp nag ndax ñun li may faral di wax rek man ki ñu ma tudde sax ci ñaan la doon daanaka lu nekk ci deret ji la moo tax bari na luy te ñi sax ñaare ci wàllu bu bu bu ak suñu loxo rek suñu borom def ci saafara. loolu damay gëm ne ginnaaw ndimbalul yàlla lim doon it def ji lu doon lu nit doon doy for looloo tax suñu bëggee daal noonu rek la yàlla la di taalibu sëñ Tuuba jàng alxuraan di doomi soxna génn ci bitim réew itam pour jàngi xam-xam ñëw di ci dimbali doomi jaami yàlla yi loolu kooku muy suñu bëggee di jàll. jërëjëf sëriñ Abdou Guèye ci tontu bu am solo boobu xam naa laaj bi ñu ci jiital mooy da ngeen di yëngu ci wàllum faj wàllum ñaan. Euh, mu nekk ñaari liggéey wala ñaaru mbir yoo xam ne nii jamono yi askan wi soxla nañ ko lool ci seen ak dund rawatina lu jëm ci seen wér-gu-yaram waaye nag rawatina lu jëm si ay ñaan liggéey bu njëkk bi nga xam ne nii mooy wàllum faj mi boo ñu ko bëggoon a présenté naka lay demee ak lan ak lan faj ci gàttal lan ngay waxe ba tey. liggéey moom ñi ko moom bu demee ko boo génnee ci mbedd mhm. ku la xool xam ne yaa ngi nii. Mhm. <laughs> Euh, wax dëgg yàlla xam na lii ngay def léegi euh, xam nañ ne ci loolu bu baax a baax mhm. euh, li ñuy faj tamit bari na tawat yi ñuy faj bari na ndax bés bi moo ko mate mhm. bokk na ci yi ñuy danañ faj ki nga xam ne dafa am estomac mhm. estomac nag bu ko waxee ñi koy dégg te xamuñu woo te mosu leen a dal danañ dana woyof ci ñoom waaye feebar bu metti la ndax bu dalee nit ki day mel ni daa am donj wu nekk ci dënn bi mu mel ni ku bëgg a wàcc te du mën a wàcc en même temps lekk yu weex da koy bañ te itam lu lu lu gaaw la ci fagagal nit ndax da koy fat kooku ñax ñi ñoom daal moom xam nañ ko kooku ku ci yàlla dogal nga ñëw fii ci ñun dañ koy faj ba mu wér ñun buñ la fajee estomac lépp lu la aaye mën nga ko koy lekk saa buñ la joxee suñuy traitement nga traité la ko ba ne la lekkal loo lépp luñ la aaye woon lekkal te doo ci am benn jafe-jafe ndax dañ koy faj ba mu wér tawat bu dul amut ngay dégg tubaab bi naan jabet feebar sàngam du wér feebar sàngam du wér waaye li yonent bi sallallahu alayhi wa wax loolu mooy li ñu gëm ña muy li ku li daawam duwaaw jàngoro yëpp am na saafara tas eh, jàngoro bu nekk rek laata yàlla di ko wàccee utal na ko saafara ba noppi loolu bokk na ci yi ñuy faj am na feebar ba bu ñuy wax jabet tamit tam yaatul lool fi ne type 1 beeg type 2 bi yëpp ñun dañ koy faj bu wér incha allah rabbi mag mi nga xam ne dafa am prostate tamit li ñuy woyee prostate nga xam ne mag ñi la ëpp lu muy dal eh, ñaare tuur ndox bu ñu def day metti wala sax mu di leen të wala itam am na ñoo xam ne daf leen di dañuy jege seen seen feebar xëppis bu ñuy tuur ndox dafay jegeyaantoo chaque cinq minutes ñu dem tuuri ndox te feebar boobu mën naa nuru jabet te fekk du jabet ku jabet tamit ñaar lu cëpp day tuur ndox lu bari jegeyantoo waaye ki nga xam ne dafa am prostate tamit dañ koy saafara ba mu wér kooku moom liñ ci faj ci nit mu ne su nat loolu ñaar la ci ki nga xam ne tamit dafa am ilsha euh, kooku itam dañ koy faj ki nga xam ne itam dafa am li ñuy wax rhumatisme mm-hmm. moom it mooy tànk yu métti ak ki nga xam ne dafa am euh, maux de rein maanaam ndigg luy métti wala maux de tête wala biir buy métti yooyu yëpp yi nga xam ne ndax yi koy waral nag dafa bari mm-hmm. xam nga tawat moom ñaare neexu la wax ne lii lay faj lii lay faj lii lay faj yombul mm-hmm. waaye li wér-wér mooy tawat yi ñu tudd képp ku ñu ko indil incha allah rabbi Euh, bokk na ci tawat bu ñuy wax hémorroïde wala xëy na di nga ci ñëw. Mhm. yooyu yëpp ay tawat la yoo xam ne daal ku ñu ko jàmbat fii dañ lay faj ba nga wér. Mhm. kuñ ci faj te wéroo rek dañ lay delloo la ñuy joxam loolu moom lu leer nañ la euh, jërëjëf sëriñ Abdou Guèye Ridial di leen fàttali rek ne ñoo ngi fii ci Touba ci jannatul firdawsi ci këram ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni mu ngi koy def ci askan wi xam naa ñu fàttali leen numéro bi rek 77 943 06 88. wala 76 642 46 04 xam naa dinañ ko bind ci écran bi ngeen mën di ko xool ku soxla Serigne Abdou Guèye Ridial nga mën ko jot ci wàllu wu demee noonu mu mel ni sëñ Abdou wax nga ko léegi xam naa bu toppee listu maladie yi dana bëri lool feebar yi nga xam ne nii moom ngeen di faj. buñ ko toppee dana bëri mais jukki nga ci yenn rek wax nga itam ni nga xam ne nii moom ngay jëflante ak askan wi ci koo xam ne ni bala ngaa euh, faju wala bala moo fay dara il faut nga essayal ko wala mu dem ba xelam dal loolu mu mel ni tam lu xaw a jafe la ci euh, jamono ji nga xam ne nii ci la ñu toll waaye sëñ Abdou bala ñoo dikk ci wàllum ñaan yi mel na ni euh, secteur bi ngeen nekk mooy fajum cosaan nekk na loo xam ne nii wala faj nekk na loo xam ne ni jamono yi bëri nañu ci tab bi ba xaw koo yàq yow naka nga jàngati mbir moomu. loolu moom métier bu nekk la. maanaam boo demee ci safar si da nga fay boo xam ne mënul boo demee ci napp gi da nga koy fekk boo demee ci marché bi da ngay fekk koo xam ne la muy def maîtrise wu ko mhm. noonu la deme rek mhm. moo tax waaye loolu yëpp du du yàq dara ci yëf yi ndax teewul ñun ñi ñu xàmmee ci li ñuy def tam mhm. wóor na leen ne fi ñu koy teg fi ñu ko fi ñu ko koy defee mën nañ ko ñu ngi jëflante ak ñoom ba tey yàqu-yàqu boobu ñun dañ koy dégg rek waaye yàlla dogal na bokkuñu ci ndax li tax bokkuñ ci mooy bépp feebar bu ñu indil muy tawatu yaram muy tawatu poos bu dee tawatu yaram boo ñu waxee sa feebar wala ñu seet ko ba ne la feebar sàngam la buñ déggoo rek dañ lay faj incha allah. Mhm. kooku moom ñu ci xam-xam nañ ci wér. Mhm. am maa jëmmi nag ñi ci dugg te bokkuñu ci mhm. duñ neex a génne. ndax am faj bu fekkee ne euh, régla régulariser wuñ ko xam ni ngeen koy waxee ci tubaab. maanaam teguwul ci yoon. kum neex dugg kum neex génn. Euh, su boobaa nag dootuñu xàmmee te ñuy dëggal ak ñiy def na ko su dul noonu. waaye ña xam ne seeni maam la woon démb ba tey jii seeni set ñoo ñoo ñoo fi nekk. loolu mooy li képp daal koo xamante ne bi indi nañu tawat man laa wax ñu xool tawat boobu mën koo faj mën ngaa dalal sa xel ci ne danañ la saafara incha allah rabbi loolu moom ñu ngi ci xam ñu ngi ciy jëflante ñoom bu baax a baax te kenn amuñ ci jafe-jafe wax dëgg yàlla. jërëjëf Serigne Abdou ci xam naa dañuy dugg ci beneen partie bi ndax tey dañ koy def ab nii nag ab sara xam naa dinañ ko gën a yaatal beneen yoon muy wax nañ ko dangay ngay yëngu ci wàllu asraar wàllu ñaan euh, di ko def ci alxuraanul karim ak euh, lépp loo xam ne ni rek lu dagan la lu jëm ci diine loolu itam nga koy defal askan wi wàllu liggéey boobu itam boo ma ñu ko bëgg na tënkal euh, xamale ko ak askan wi ñuy seetaan lan nga leen di wax ci wàllu asraar boobu. wàllu asraar tamit mooy asraar boo ko waxee rek mooy ku jàng alxuraan. Mhm. Euh, secret yi ci biir alxuraan te nëbbu ñu jàngal ko ko ba mu xam ko muy secret buy faj aajo ak buy ñoddi mbir ak buy jëñ. isa talabtu min ilahi jalaba waaye isaatu bi ilahi shalaba la sëñ sëñ uh, yàlla moo may moo may jeñal moo may ñoddi li ma bëgg a ñoddi yàllaa koy ñoddi li ma bëgg a jañit moo koy jeñ alxuraan nag dafa am dafu ak jalab muy ñoddi ak jeñ li ngay ñoddi lan la njariñ lu bëgg loo bëgg mu ñëw ci sa dund mu ngi fi loola loo ragal di ko dàq itam mu ngi ci biir alxuraan maa farat naa fi kitaabi min shay ba tax na kon bu nit ki ñëwee mel ni sëñ Abdou man kat dama am jafe-jafe sàngam samay xaalis dama daan am alal muy tasaaroo wala dama mënta am dara wala ba ma dalee liggéey ba nekk ni mënumaa taxawal dara léegi nga ne ko ah kooku kat dañ koy xool soo xoolee mbir ma gis ne kii raba ko jàpp wala catu ko jàpp wala dañ ko liggéey dindi ko lu yomb la ñett yooyu boo ci xas xam rek dindi ko day yomb lool foofu nag la sëriñ si rawante day gis ku naa la man dem naa ci fukki sëriñ ak nangam musu sama aaju mën dafa waaye fi ñuy rawantee rek mooy xam nit ki lan moo ko tëj ndax nit fi ne nii benn bekk suukar wala ñetti bekk suukar wala ñetti miski rek mën na koo téye dundam gépp lu mu bëgg du ko mën a am fekk demul ci ku xam lool nag mu wax ko ne ko lii yow kat nangam mooy sa sarax dama ko misaale ci bekk suukar waaye mën naa doon ganaar mën naa doon béy mën naa doon gëléem mën naa doon xar mën naa doon lu nekk mën naa doon soow mën naa doon suukar tamit ñu téye nit ki ci sayful asraar nag ku jàng alxuraan mën ngaa wër ba sonn doo gis loolu jëriñ su ko defee bu nit ki ñëwee nag buñ ko xoolalee xamal ko ne ko bu koy bu dee cat ak jàpp liñ koy dindee am na boo xam ne ñetti fan du ko passé ci nit ki ak lu mu dëgër dëgër bopp du mën nag alxuraan la moo amee am na boo xam ne juróom fan du ko passé ci nit ki incha allahu rabbi am boo xam ne fukki fan ak ñeent ça ci ni mu jàppe nit ki am boo xam ne ñaar fukki fan ak benn nga koy mën a sa nit ki mu door a deñ ça dépend ci ni mu yàggee ci moom su ko defee nag bu loolu deñee ci moom ba pare ñu defal ko ubbeekaay ubbeekaay yooyu nag ay façon am na ci boo xam ne dañ koy liggéey mu ànd ak xaalis sungufu xaalis sungufu or ak bii xaalis eh, waaw sungufu xaalis sungufu or sunguf bi ñuy wax timiñ timiñ moom la moom la ñuy wax béréwér ngeen buñ ko liggéey dañ koy suul juróom-ñaari fan bu ko juróom-ñetteel lañ koy suul jox ko nit ki mu di ko diwoo incha allah rabbi lu mu tëju tëju tëju tëju bu jëfandikoo loolu dana am ubbeeku ci lu gaaw ci kàttanu suñu borom mm-hmm. am na boo xam ne it ñu ngi koy wax xulóobul xalaa yax muy jaar mm-hmm. jaar bi bu ñu ko liggéeyee tamit bu tekkiwut na jaar bi kese rek la jox nit ki am na yeneen yu muy àndal yu koy raxasal yaramam ak lu koy ubbil wërsëgam ak lu koy aar su ko defee bu jëlee jaar boobu moom bu dee lijjantikat la wala koo xam ne lu mu am du taxaw ci loxoom ci kàttanu suñu borom jaaro boobu dana ko ci dimbali ci kàttanu yàlla su boobaa loolu itam du man secret yi nekk ci biir jaaro ba ak lam sangoo loolu ñoo koy may loolu ci kàttanu suñu borom beneen bi moom la ñuy wax wallu mag wallu mag mag ñi dañ mag ñi nga xam ne dañu daan dem ba seen doole di bëgg a jeex wala ndaw li nga xam ne fu ne fëgg na fa mënta sotti moom lañ ko daan liggéeyal mu jël billet xaalis ba mu gën a bëgg a bari la bu dee daan ne bitim réew mu jël billet billet booba ba gën a soxla rek mu dugal ci biir sangoo bu dee daane Sénégal mu jël billet 5000 wala billet 10 000 dugal ko ci biir billet boobu nga ci dugal dana la dana sotti ko ci sa kaw dana la maanaam dootu la jafe ci àdduna dana la yomb ba nga xam ne lii moom am na lu ci loolu mooy wax tamit du man alxuraan la mu ngi ci biir alxuraan ci lu wér wér wér te bu ñu la ko joxee yow mi ñu ko jox ba nga téyel ko sa bopp da xam ne lii lu wér wér la loolu mooy lenn ci liñ mën a wax ci asraar am na ci yeneen yoo xam ne nag suñu bokk soxna yi ñoo koy soxla ak ñi nga xam ne seen kër dafa am coow euh, ñi tibbante tànk tamante fii xëccoo fii seen borom ak ñi seen borom kër di may am nañ secret yoo xam ne buñ la ko joxee yow soxna si nga nga jëfandikoo ko nañ la ko waxee sa borom kër bu dee day taxawaaloo dana ko bàyyi dootu mooy ci beneen jigéen yow góor gi tamit boo ñaawee njort ci sa soxna defe ne day taxawalu am na fi luñ ko mën a sangee ba nga xam ne kenn du jëfandiku ci moom pour yow loolu yëpp mu ngi ci biir jërëjëf sëñ Abdou Guèye Diall euh, di fàttali rek ne di yëngu ci wàllum ñaan wàllum faj ñu fekk ko nag fii ci jannatu firdawsi ci Touba. Euh, ni mu ko waxee rek ci ñaari liggéey yu am solo yooyu lépp nga xam ne ni ci bi alxuraanul karim te itam nekk liggéey boo xam ne itam da ko donn tarbiya ko teg ko ci ak sellal mu mel ni niñ leen ko waxee léegi rek tey dañu ñëwoon doon ubbi. Euh, première partie xam naa incha allah dinañ gën a yaatal waaye sëñ Abdou mu mel ni léeg-léeg da ngay nekk Ndakaaru wala nekk Touba wala ku la soxla naka lay def gannaaw numéro téléphone yi naka lay def ba jot la. nekk Dakar Parcelles unité 6 ci jëpp gas bi waaye fii ñu toog mooy suñu euh, suñu dalwaay ci Touba ndax kër moom sëñ bi bi daan wax ne euh, dal euh, firdaw si naa dëkk waaye dal baa nga jaay <laughs> waaw. kon fii mooy dal bi ci niñ ko mën tekkee ci Touba. Mhm. ku woote ci numéro yi rek boo fekkee ne dangaa ngaa féete diwaan Touba dañ la wax la ñu ngi fi. Mhm. bu fekkee ne dañoo féete dakaar yi danañ la tegtal euh, fañ nekk ci Dakar. Mhm. li ëpp ci ñi ñuy jëflanteel sax ñaari duñ leen gis ñu ci bari ñu dul ñuy faju si ñëw ci kër gi di faju si yooyu ñu ci ëpp biti réew la ñuy féet lañ nekk. ñooñu dañ leen di yónnee seen ñaan par CP mhm. ci CP yi mhm. wala ci poste yi dañ leen di yónnee seen ñaan ñu jot ko mhm. ci kàttanu suñu borom ku jot sa ñaan rek ne ma jot naa ko ñu wax la ni koy jëfandikoo ndax loolu léegi moom amatul jafe léegi comme jumtukaay yi bari na ba nga xam ne mën ngaa expliquer ni te du te doo ko gis moo ci ñi di ñaan la foofu lañ waaye képp ku soxla daal sëñ Abdou boo jaaree ci numéro yooyu ak bépp soxla boo xam ne am nga ko tam jëm ci wàllu ñaan te waxuñu ko ci biir waxtaan wi rek ba xam ko danañ la ca gindi incha allahu rabbi xam naa kaddu yi tëj waaw mooy kaddu yi sant rek ndax bu la yàlla mayee xam-xam sell nga di ko def di ci jëriñ doomi adama yi ñoom ñu wëlbatiku bi waxal seen bopp di sant loolu jar na sant yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba mi nga xam ne nag lépp lu nu am moom lu nu mel moom moom lay mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg moom euh, suñu xol boo ko xaroon tey moom nga ci fekk ci gàttal kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ñëpp ñi nga xam ne mos nañoo dem ci sëriñ am fa du leen wala seen aajo fajoo fa buñ découragé nañ xam ne gaa yi ngi ci biir gaa yi te itam fa ndox daan taa ba tëj ji boo fa demee da nga ko fekk lu mën di gannaaw ñu ngi sant ñëpp di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom may ko fan gudd te ànd ak wér di ko ñaanal sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Abdu nga xam ne mooy mooy mooy suñu bund ji si Cheikh Mouhamadou mu ci suñu bund ji Serigne Touba ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di leen sant yéen itam ci déplacement bii ngeen def dagg seen yi te ñëw fekk suñu fii ci kër gi jël fi taatan fi xam-xam ngir tasaare ko doomu yi ñu mën a jëriñu ñu ngi ciy sant bu baax a baax. yal ñëpp am jàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Cheikh Ahmadul Khadim amin barke Cheikhul Khadim euh, ñu leen di fàttali rek ne moom day yëngu ci wàllum ñaan ak wàllum faj di ko def nag te yàlla rek tax di ko defal askan wi ñu itam ñuy ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bi ngir fépp fu njariñu askan wi nekk rek ñu jël ko tasaare ko ba képp ku nekk ci réew mi wala bitim réew mën cee jariñoo ni mu ko waxee ñi nga xam ne ni dañoo nekk bitim réew itam te bëgg ay ñaan boo jokkoo ak sëñ Modou Guèye ci numéro yi di affiché ci ecran eh, bi di nga ko mën a dégg ngeen jëflante ba sa sedd kon niñ leen ko waxee rek lii benn ci jataay yi nga xam ne nii fës nañ ko yéene séq ak moom ci L24 la di ko jaajëfal di leen jaajëfal ci ànd gi ak teewlu gi di leen jox dox daje beneen jataay ak sëñ Abdou Guèye Ridial wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu